أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu doomu ndey mbokk yi ñu ngi ak yéen ci waxtaan wi ñu leen di defal ci waxtu wu nekk mooy risaala aajila ila jaari l masjid wa man yasma'u l azan lettre bi nga xam ne bu ñu yàkkamti la gaaw koo bind jëme ko ci ki dëkk ci wetu jàkka ji te du dem jàkk ak mbokk mi dégg nodd te du wuy ji ñu ngi tey ci sunu waxtaan boobu ñu adressé mbokk moomu nga xam ne du dem jàkk ñu koy xamal di xamal sunu bopp ne yow sama mbokkum jullit na nga yëg ne ann al masjida hiya al madarisu al haqiqiya allati tatarabba fiha al ajyal ñu yëgal doomu ndey boobu ne jàkka mooy barab mooy place mooy pak mooy école école bu nga xam ne fa la ñuy yaree ab jullit mbokk yi ab jullit su bëggee defaru day dem jàkk jàkk mooy defar jullit wa hiya aljaamiat allati yataxarraju fiha alrijal wal abtal mooy université mooy place bi nga xam ne fa la ñuy former góor yi ak jàmbaar yi allahu akbar mbokk yi jàngaleenu l'histoire l'islam aboubakrun sadiq fan la ko yonent defare ci jàkk omar ibnul xataab ci jàkk la defaroo usmaan ibnu affan ali ibnu abi taalib bilaal ibnu rabaax saxaaba yi ma lim yépp ci jàkk lañ defaroo jullit yu njëkk yépp ci jàkk lañ leen defare kon jullitu tey yi su fekkee dañoo bëgg a defaru foog ñu delluwaat ca jàkka ya walan yakunu lil muslimina izza wala quwa wala hayba illa hiina yacuuduuna ila al masajid jullit ñi du ñu mun a am teddange du ñu mun a am kàttan du ñu mun a am jëmm kenn du leen mën a jox yitte ak gëdd lu dul ñu delluwaat ci jàkka ya foog ñu delluwaat ci jàkka yi ndax jàkka mooy place bi nga xam ni moom la yàlla wax ne mooy defar ab jullit moom la yonent foofu la yonent daan defaree jullit yi kon jullit yi tey bu ñu bëggee baax foog ñu delluwaat ci jàkk yi fa yantaliquuna minha kama intalaqa minha aslaafuna al awwaluun foog ñu delluwaat ci jàkk ya jële fa départ def ko point de départ mbokk yi ñiy def athlétisme sax am nañ point de départ amul ku amul point de départ ci kaw suuf lépp lu nit di def am na point de départ jullit point de départ am mooy jàkk fi muy bàyyeekoo di tàggatoo di dem mooy ab jàkk jullit yu njëkk ya jàkka moo doon seen place bu ñuy bàyyeekoo di dem kon ñu nit mbokk yi fokk ñu xam ne jàkka mooy barabu defaru jàkka mooy barabu bàyyeekukaay jullit ñi démb ci jàkka lañ doon bàyyeekoo di tasaare njub ak dëgg ak leer ci bépp place jul ñi dem ci place jàkka lañ doon bàyyeekoo di tasaare njub ci àddina bi allahu akbar yonent bi daan daan di woo ci jàkka ji ba ñu fees del mu woo leen yónni leen ne leen dem leen ngeen tasaare leer gi dem leen ngeen tasaare dëgg gi dem leen ngeen tasaare jàmm ji te mooy lislaam fi kulli makaan ci barab bu nekk allahu akbar mbokk yi jotaat na jotaat na ñu xam ne jàkka jullit moo koy dundal am na benn philosophie français bu tudd Renan mu ne kullama raaytu sufuufa almuslimina fi salaati ataassafu wa annani lastu musliman allahu akbar mu ne saa yu ma gisee julli ñu nekk seen biir jàkka yi daa di ran taxawal seen sàppa yi di julli mu ne damay mettitlu lan moo tax nekkuma jullit fa hal tuhaafizu ala salaati aljamaa yaa habibi yow sama soppe ginnaaw lii ana lan moo la tere di fekkee julli mbooloo benn histoire a ngi ni bu doy waar bu ñuy fàttali suñu bopp di leen ko nettali yéen mbokk jullit yi ndax kenn ku nekk ci ñun góor ak jigéen ñu bàyyi ko xel benn waaye ngi nii bu yàlla mayoon kàttan may ko doole mu nekk waxambaane nekk as cam cërëm yi dara jotu ko lépp mat sëkk amul benn jafe-jafe waaye mu daal di fàtte yàlla moo ko may doole mu fàtte yàlla moo ko may kattan mu fàtte yàlla moo ko may am-am mu fàtte yàlla moo ko may xam-xam musta dégg noddukat bi di nodd ba mu dem wuy ji waaye caaxaankat bu woote mu wuy bu ñu wootee Bercy mu dem bu ñu wootee Sorano mu dem bu ñu wootee bu ñu wootee fu ñu woote mu dem wootekat yëpp dina leen wuyu ba mu des benn wootekat muy yàlla allahu akbar saa yàlla waxee du dégg yonent yàlla su waxee du dégg waaye keneen ku wax mu dégg su iblis wootee mu dem su ko seytaane woowee mu dem su ko bakkan woowee mu dem bu ko aduna woowee mu dem bu ko xarit woowee mu dem bu ko góor woowee mu dem bu ko jigéen woowee mu dem bu ko yàlla woowee mu ne maa lànk ñëwuma yàlla daal di koy natt mu feebar feebar bu metti mënatul yëkkati benn cër ñu dugal ko ci mbooleem hôpitaux yi di ko faj mënuñu am ci moom jàmm mënu am mënuñu am ci moom aafiya mu mujj soppe yi di ko seet si am di jàmm yeeg xarit yeeg dëkkandoo yi ku dégg feebar na ndax daana wuyu nit ñi ñi doon ñi mu doon wuyu ji ñëpp ba ñu déggee feebar na ñu ñëw di ko wuyu si di ko seet si benn bis benn soppeem ne ko doomu ndey mbokk tey fii nga tëdd yàlla nattu la mënatoo jóg benn cër mënatul yëngatu tey lan nga doon mébét am mu ne wallahi tey sama jubluwaay sama bëgg-bëgg benn kese la ci kaw suuf mooy tey ak a neexoon sama tànk yi mën a taxaw ba su ma déggee ñuy nodd ma wuyu ji ma dem ca jàkka ja julli ji allahu akbar mbokk yi ginnaaw histoire bi kenn ku nekk xoolal sa bopp ndax bëgg ngaa mel ne waa jooju taxayal nafsaka yaa axil muslim makaana haza rajul xoolal sa bopp xoolal sa place tey bu la yàlla nattu woon nga nekk mbokk mi wahila baynaka wa bayna alxarakaat yàlla jaar sa digganteeg yëngatu mënatoo yëngatu wa zihab wal iyaab yàlla jaar sa diggante ci dox ak dikk mënatoo dem mënatoo dikk benn place yàlla teg la fa nga nattu la mënatoo bouger ndax kon bu ñu wooteetee biir si di nga dem ndax bu ñu wooteetee soraano di nga dem ndax bu ñu wooteetee ci place caaxaanukaay yi ndax di nga dem allahu akbar kenn ku nekk xoolal sa bopp mbokk yi war nañ góorgóorlu xam ne jullit dafa war di dem jàkk dem julli ji jàkka farata la ci ab jullit farata la yàllaa ko santaane yonent bi ñëw feddali ko ci ay adilla yu leer nañ yuy wane ne julli jàkka julli ji mbooloo farata la ci téere bi ak ci sunna yonent yàlla muhammad ak ci waxu saxaaba yi yu dul jeex saxaaba yu baree baree baree bari kenn mënul natt sax li saxaaba yi wax ñi saxaaba yi dëppoo ci ne julli ji jàkk farata la waaye dinañ ci indi lenn ci ay aaya indi ci lenn ci ay hadis indi ci lenn ci waxu borom xam-xam yi ak saxaabatul kiram yuy wane ne julli ji jàkk farata la borom bi tabaraka wa taala wax na yowma yuksafu an saqin wa yud'awna ila sujudi fala yastati'un khasi'atan absaruhum tarhaquhum zilla wa qad kanu yud'awna ila sujudi wa hum salimun borom bi tabaraka wa taala nee na bis a ngi ñëw bis bu ñuy wuññi yeel yi ñu woote ñëw leen sujjóot nee na keroogee ñi daawul sujjóot keroog lañ leen di xàmmee ndax bu yàlla wootee sujjóot ñi daanu sujjóot dañuy sujjóot ñi daawul julli daawuñu sujjóot fala yastati'una dootuñu ko mën yàllaay téye seen arti seen articulation ndigg yi la yàlla di téye su keroogee nag gaa yi nga xam ne daawuñu dem jàkk julli ji danañ bukki seen bët yi xaasi atan absaarum danañ bukki seen bët ba dootoo gis per bu ñuul bi tarxaquhum zilla toroxtaange nga ngi leen muur ndeyjoor ak càmmoñ ci kaw ak suuf lu tax yàlla mu ne waqad kaanu yudawna ila sujudi wa hum saalimun dañ leen doon wax ñëw leen julli ñu ngi wér këng dara daru leen ñu lànk ku woote ñu wuyu ñi ba mu des woote yàlla bi yàlla nee na tey lu moo tax ñu torox ñu torox said ibnu musayib rahimahullah biñ ko laajee aaya bi kaanu yasmacuuna hayya ala alsolaa hayya ala alfalaa falaa yujibuuna wa hum asiha saalimuun saad ibnu musayib noonu la firi aaya bi nee na dañ leen daan woo ñëw leen ngeen julli hayya ala salaa hayya ala alfalaa ñu lànk falaa yujibuuna duñ wuy ji ñu lànk te waxum ñoom asiha saalimuun ñu ngi wér këng dërëm jotu leen tus ñoo gën a war wér dërëm ñu lànk ba ñu wuy ji woote yàlla bi tabaraka wa taala te fu ñu woote mu jaral leen sax ñu dagg ay billet avion dem di caaxaani ji kaab kaabul ahbaar nee na wallahi maa ngi giñ ci màggaay yàlla maa nazalat hazihi l aaya illa fi lladina taxallafu an iljamaa nee na aaya bi wàccu lu dul ci gaa yi nga xam ne du ñu dem jàkk faayu waidin ashad wa ablag min hada liman taraka salat aljamaa ma alqudra ala itiyaniha mbokk yi ana ban tëkk ana ban mbugal moo gën a rëy bi yàlla dencal ñi dul julli ji jàkk tey ay nit a ngi ci réew mi duñ julli ji jàkk ñenn ñi ay xalifa généraux lañ di woote woo lislaam ne ñoom ñoo jiite lislaam bi te duñ dem jàkk ñi ay président lañ ñi ay ministre lañ ñi ay député lañ ñi ay sénateur lañ ñi ay ñi ay ñi ay duñu julli ji jàkk mbooloo mu ñu woote danañ dem da nga leen fa gis ñu ngi buuxante ci stade yi di buuxante ci place yi ba mu des jàkk koo ci wax mu ne bon aw ma temps looloo tax du ngeen ma gis parce que aw ma jot bisa ngi ñëw di nga am jot bis bu ñu la wàccee sa lal bi wàcce la ci sa mat la bi tëral la ci jaag bi jëme la bàmmeel ya wallahi bis bii bu ñëwee di nga am jot amoo jot nit ñi waaye nit ñi danañ am sa jot kenn du añ te suuluñu la kenn du reer te suuluñu la danañ gas pax bi ba mu xóot daan la ciy tàbbal dem ñibbi yàlla fekk la foofu xam ne yàlla caaxaanluwul yàlla fowul folowul mbokk yi ab jullit day dem jàkk borom bi tabaraka wa taala mu ne wa aqimu salata wa aatu zaka warkau ma arrakiin alshaahidu qawluhu warkau ma arrakiin wa huwa nassun fi wujubi salati aljamaa wa musarakati almusallina fi salatihim walaw kana almaqsudu iqamatiha faqat laktafa biqawlihi fi awwali alaya wa aqimu salaa borom bi tabaraka wa taala nee na taxawal leen julli joxe leen azaka dem leen ngeen rukkoo ji ànd ak ñiy rukkoo ñiy rukkoo fan lañ nekk est-ce que kuy wër ñuy rukkoo ci stade ngay dem est-ce que kuy wër ñuy rukkoo ci dancing ngay dem kuy wër ñuy rukkoo fooy dem ca jàkk looloo tax wax ji yàlla jublu ci aaya bi mooy warka'u ma'a raaki'in mooy dem leen ngeen julli ji ca gaa yi julli nee na texte bi dafay wane ne dem jàkka julli ji ca mbooloo dem participer ca julli mbooloo ba farata la bu fekkoon ne jubluwaay bi mooy yàlla danaan julli leen kon day wax waa aqimu salaa rek foofu la koy dagg waaye mu teg ci warka'u ma'a raaki'in loolu mooy wane ne dem julli ji jàkka farata la jullit dafa war a dem di jàkk suba tisbaar takkusaan timis gée mbokk yi yàlla tabaraka wa taala nee na fa ida kunta fihim fa aqamta lahum alsalaa faltaqum taifatun minhum maak aaya bi yàlla nga ko doon wax ci xare yàlla ne muhammad boo ànd ak julli ni ñu nekk mbooloo julli jot na nga leen diviser en deux mbooloo mi nga ànd ak yow julli beneen mbooloo mi garder boo ànd ak mbooloo mi julli beneen mbooloo bi taxaw garder mbooloo mi ànd ak yow julli bu ñu sëlmalee beneen mbooloo mi doon garder daal di julli mbooloo bi doon julli daal di garde gis nga ci xare ci xeex la yàlla ne julli mbooloo farata la waxuma laag nag ci am jàmm ki am jàmm nekk ci ay climatiseur am nekk ci bureau am saal bu ñu climatisé sedd guy mu jékki-jékki dégg ñu naan hayya ala salaa hayya alal falaa waa ji di ko woote ndeysaan amul lu muy def lu dul tëj fenêtre am tëj ay buntam dugg ci otoom ne fes wuyu ji seytaane bàyyi wootekatu yàlla bi tabaraka wa taala mbokk yi aaya yi ñu jàng day wane ne ab julit day dem jàkk ay dalil yu leer a ngi nii yu wane ne julli ji jàkk farata la ci xeex la yàlla wax julli ñi da ngeen a war a julli julli ji mbooloo ñaareel ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci xadisu abu hurayra xadis baa ngi ci ñaari téere yi gën a wér ci téere xadis yi muy buxaari ak muslim mu ne laqad xamamtu an aamura bi salaa fa tuqaam summa aamura rajulan fa yusalli binnaas summa ntalaqtu bi rijalin maahum huzamun min xatabin ila qawmin laa yashhaduna alsalaa fa axraqa alayhim buyutahum binnaar allahu akbar yonent bi saa sallam nee na yitte woon naa julli jot ma taxaw ci kanamu mbooloo mi ñu noddu li qaam ma woo benn waay ne ko jiiteel ma tànn ci mbooloo mi ay nit ñu dem ci àll ba for ay matt taxan ma indi matt yooyu ci kër gaa yi nga xam ne du ñu dem jàkka ma lakk seen kër yi seen kaw allahu akbar man yonent bi yitte woon naa julli jot ma wax nañu nodd ñu nodd ma wax nañu liqaam ñu liqaam ma tànn ci jàkka ji ay nit ñu ànd nañu ak ñoom dem ba ca àll ba ma ut ay matt ñëw ci biir dëkk bi fekk gaa yi nga xam ne duñ dem jàkk ma lakk seen kër yi ñu ne yonent bi lu tax nga bàyyi ko mu ne dafa am ay jigéen dafa am ñu feebar dafa am ñu am ngànt su doon du ñooñu dinaa lakk kër yi mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwoon tey ci kaw suuf pale yi lay njëkk a lakk ak kër lenn ci ay xalifa général yonent yàlla Muhammad dana lakk seen kër dana lakk ay kër député dana lakk ay këru ministre dana lakk ay këru sénateur waaye dana lakk ay këru jullit dana lakk ay kër yu dul jeex ndax tey seytaan moo frenkulaayu sunu xel ba ñu jël julli di ko sofantal nga gis julli bu dul julli nga gis julli boo xam ne dañ ko tere julli allahu akbar nga gis julli boo xam ne dund na ba xëy dee mësul julli ci jàkk di ko tiitaroo en matière de prière je ne sais pas fort en matière de prière allahu akbar benn politicien bu mag ànd ak mbooloo julli jot comme moo fa gën a rëy dara gars yi ne ko jiiteel lan la leen tontu ñu ko waxoon jiiteel mu ne leen bon je ne sais pas fort en matière de prière inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey dee na mu ngi ci biir suuf ñu suul bu fekkee forul woon ci matière prière naari jahannama la jëm yal na ko yàlla yërëm bañ koo topp ci melokaanam ba meloon yéen samay doomu ndey yéen samay mbokk na ngeen xam ne yontu yàlla muhammad mi julli yitteel ba mu nar a uti ay matt di lakk këru ñu dul dem jàkk loolu mbir mu doy waar la mbir mu rëy la mbir mu garaaw la mbir mu dangereux la ci ab jullit yéen samay mbokk jullit ñëw na ci beneen xadis buy wane ne jullit dafa war a dem jàkk ana rajulan ama qaala ya rasul allah laysa li qaa'id yulaa'imuni ila al masjid fa hal li ruxsa an usalliya fi bayti benn gumba bu tudd abdullahi ibnu umu maktum moo ne yonant man silma xalaa awma ku ma wommat pour ma dem jàkk ndax bu ñu noddee am naa ngànt julli sama kër lan la ko yonent tontu silmaxa ku dul gis gumba yonent bi ne ko hal tasmau nidaa bis salaa ndax bu ñu nodd noddee di nga dégg mu ne waaw yonent bi ne ko fa ajib demal nga wuyu ji bu fekkee gumba la yonent bi ne demal nga julli ji gumba googu nan la def ulama usira nee nañ dafa jël buum buum bu gudd dafa dem marché jënd buum bu gudd ñoo takk buum bi ci buntu këram jël beneen cat bi takk buntu jàkka ja suñu noddee mu jaar ci buum bi dem bu julli gi jeexee mu jaar ci buum bi ñibbi ana njàccaar yi tey bu fekkee silmaxa mooy dem jàkk ana njàccaar yi tey ey yéen njàccaar yi ey yéen borom tànk yi ey yéen ñi wér nga lawaay wuy si leen woote yàlla tabaraka wa taala balaa yàlla ñëw ak mbiram yàlla yàlla def ci ñun dégg ak topp yàlla yàlla oyofal ñu julli ji mbooloo ba munoon oyof ci ñun yal na yàlla daqal ñu seytaan yal na yàlla sóoril ñu iblis aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh